duppee euh, les mille deux cent milliards yi nga xamné euh, donc dañ ko réclamer euh, nguurug Sénégal euh, té Ousmane Sonko réclamer ko fële nga xamné mom moy cour cour de justice de la CEDEAO mu japp mu dellu sé ci lim boobu 1250 milliards yo xamné Ousmane Sonko réclamer na ko état du Sénégal ci ab dossier mu mom El Hadj Diouf nag jàpp Euh, c'est anti-républicain doxalin boobu noonu euh, tax moom Ousmane Sonko di réclamer koppar yu tol noonu ci euh, kanamu cour de la CEDEAO ci ab dossier boo xam ne dox na digganteem ak nguurug Sénégal moom El jàpp ne nag loolu day wane rek ne Ousmane Sonko xaalis ko gën a yitteel ah donc ndax. ay ñoñam ñikoy layal demander nañu à ce que ñu condamner nguruk Sénégal mu fay 500 milliards ki nga xamné moy Ousmane Sonko pour li nga li jëm ci walu dommage et intérêt yenen 50 milliards yi muy ah donc euh, mu don dommage et intérêt ngir euh, partem bi di Pastef nga xamné dañ ko dissoudre Hein, euh, donc euh, euh, mon maître donc dellu également ci li nga xamné yi a ba Ousmane Sonko di laaj copar yu tol ci mu wax ne Ousmane Sonko amul ben respect ci a amul respect justice Sénégal euh, ba pare euh, dafay défier donc euh, li nga xam ne moom institution publique yi maanaam li ci ñëk muy justice bi rek ah, jaarale ko nak ci di leen di yëkk ay kaddu yu ñak worma diko tek ci donc li nga xamné moy institution judiciaire bi moom Me El Hadji ci plaidoirem dem na sax bay donc Euh, wax ne Ousmane Sonko ki ñonam ay euh, fàtkatu nit lañ maanaam ay criminel lañ ci niñ ko mën a duppee euh, dem na tamit ba di ko dëkkaale rek ak ab ay rebelle ba di leen dëkkaale ak i rebelle mu xamle ne nag tey ji tey lépp li nga xam ne moom mooy dëgg rek ah, dina dina dina feeñ ci dossier bi ndax.

askan bi waye it ah, di len wax lo xamne du deug du teggu ci ben finde du teggu ci ben base momet Maître El Hadji wax euh, mu jàpp ne les tueurs et les criminels sont à Pastef mom met El Hadji ne euh, ñi nga xamne ñoy ñooy nit yi ah, nga xamne euh, nañ len ay nit newuñu fenn fudul parti bobu ñu duppe Pastef te nga xamne tas nañu ko ay euh, weer yi ñu génn euh, mu doon plaidoirie yi nga xam ne maître El Hadj Diouf amal na ko ci kanamu donc euh, le président de l'audience de l'audience donc Mayacine coor et mu yëkkati ko nag ci kanamu ay naatangoom yi nga xam ne également ñoom ñooy layal nguur gi gannaaw kàddu yi nga xam ne l'agent judiciaire de l'État yëkkati na ko ak maître dama Fall ci boppam moom maître El moom it yëkkati na ko euh, euh, gannaaw loolu nag ci la ñu euh, donc maanaam tëj li nga xam ne moom mooy plaidoirie des avocats de l'État ci wàll wi waaye maa ngi koy wax sànq am na réplique boo xam ne jot nañ ko accordé ñi nga xam ne ñoom ñooy avocat wu ngir rek ñu dellu si ci plaidoirie yi nga xam ne donc les avocats de l'État def nañu ko euh, avocat Ousmane Sonko